dañ ko jox iPhone 13 sino mu tasaare vidéo yi ci senegal gi yépp waaw maa yow lan def sama kër lu xew. Euh, ban Ramatoulaye Ramatoulaye Ott. Ramatoulaye waa sa élève. sama élève yow xaritam nga. waaw xaritam la. yow nga xaritu Ramatoulaye nga te ose ba ne chez moi. papa dalal rek. non man de dama ne yow yaay dal d' abord est ce que Ramatoulaye yónni wu la pour nga espionner ma encore li ma def doyul. papa dalal rek dalal rek. alors que say tànk. papa gis nga. problème bi yëpp am yëpp laa yëg. Ah, kon xam nga ce qu'elle m'a fait. xam nga li ma def. yëg naa lépp wax na la daf ma piégé. yëg naa lépp wax na la que man dañoo daje dans la rue. elle m'a invité chez elle sama fibre jàngalkat jóg ma dem këram mu piégé ma wax na la loolu yëpp. non jotuma wax loolu nag. mais li ma te dire ça loolu waroon njëkk a wax d'abord. jotuma wax loolu. mais dama bëgg rek nga ànd ak dal waaw parce que gis nga problème yi yëpp man bi ma ko yëgee depuis boobu ba léegi lu ma mën ak lu ma mënul yëpp maa ngi koy def.